jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne bu ngeen gisee ki ñu toogal nga xam ne kenn du ko présenté ci làmb muy Serigne Fallou borom njaay production mu ne mu jëm ci bis bu mag boo xamante ne vraiment affiche bi combat bu ci nekk rek daanaka grand combat la mu jël ko xaw ma na daf ñu ko defal cadeau wala dafa bëgg a satisfaire ñi nga xamante ne mooy amateurs yi ndax saa yu organiser vraiment ku ci nekk yëg ci sa bopp. ginnaaw loolu dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñëweel waxtaan sañ sëñ Fallou maa ngi lay nuyu baax di la siyaar baa jili maa ngi lay delloo siyaar di la nuyu di am mbégte ci dalal bi ñu dalal tamit di nuyu sëñ basiru bi nga àndal hmm. di am mbégte ci teewaay bi hmm. di nuyu baax mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi siyaan Wassare Lambo hmm. di am mbégte ci liggéey bi day gis na ne jaar na yoon vraiment gis nañ taxawaay bi ci làmb tamit am na solo trop. Hmm. di am mbégte di pare rek di déglu nag ngay laaj mooy tontu. <laughs> li li li li li ñuy njëkk ci li ñuy njëkkee mooy làmb ji combat yi nga xam ne da nga koo taxawal mu nekk combat yoo xam ne bu ci nekk dafa neex. dañ hmm. fàllu combat bi ci njëkk bi mooy mu la mooy Laurent Ndiago ak Bou Siteu. Hmm. combat boobu ni nga def ba taxawal ko. waaw xam nga loolu combat phénomène la ndax tey boo xoolee Laurent Ndiago phénomène la Bou Siteu phénomène la. Euh, boo xoolee bu Siteu adversaire am comme ni mu koy waxee rek maa ngi koy déglu dem bëri dem vendredi ci live bi ko jëlan hmm. mu ne ma adversaire am bëri yu ñu ndax poids am ak taayam hmm. Laurent ñëw nekk phénomène nekk mbër boo xamante ne nii turam da koo jiitu ci làmbo nga jël ko boole bu Siteu dina difficile ndax yaakaar naa promoteur yi ko bëggoon trop hmm. vraiment amoon yu particulier ak mbër yi mais yàlla suñ borom mooy dogal ne Fallou Ndiaye moo tëgg Laurent Ndiago bu Siteu ndax combat bi ñun benn fan lañ ko waxaale benn fan. combat boobu. benn fan lañ bi dafa dafa jafe de. waaw li muy jafe jafe yëpp li muy compliqué yëpp benn fan lañ ko benn fan lañ ko lañ ko waxaale. Hmm. yàlla dogal ñu juddoo ñu juboo ba seet ñu joxe seen avance. Hmm. Euh, xawoon naa dëgg tuuti nag ci côté Bou Siteu comme ni ñu koy waxee chaque jour rek mais lamb phénomène la comme ni ma ko waxee ñaari mbër la ñoom ne ni même bu ñu bëriwul fii dañuy bëriwaat. actuellement nii adversaire potentiel Laurent Ndiago bu Siteu la. Hmm. adversaire bu Siteu potentiel Laurent Ndiago la. Hmm. ñu waxtaan ku mel ni Bousse ke cop vraiment def ci loolu bu am solo moom it jàpp ci bu baax nag taxawaay hmm. taxawaay bu am solo ak Zaloni bi nga xam ne moo yor bu Siteu. ñu waxtaan ak ñoom vraiment jim leen a convaincre nag wax leen fi lamb toll xam ne li gañ pexe dara wu leen ko mën a xañ. fexe leen convaincre ba mën a jël combat bi muy loo xam te ni dañ ci am mbégte ci bu Siteu nag ndax gis nañ taxawaayam ndax su ko neexoon du bëree. mais ba mu nangoo bëree moom rek lañ koy féliciter moom it di ko encourager di ko wax ne làmb noonu la comme liggéey la mooy seen métier toujours bu ñu gisee combat dañoo war a dem jël pour bëree ji. Hmm. Mhm. dégg nañ ci sax for nañ ci weewu bay ñoom ñaari mbëri li nga leen fay ci xaalis maam jégg na dayo xaalis bi bari na loolu <laughs> ci ñoom ñaar muy Bou Siteu muy Laurent Ndiago xaalis boobu ci lan nga ko séentu ba ba fay ko xale yi. waaw xam nga tey combat Bou lu ñu leen fay rek jar na ko xam nga lu tax. Hmm. baa jëli bi nga gisee Laurent Diago bu Siteu nga njëkk a wax. waaw te ay mbër yu mag ñu ngi ci. da nga ne hmm. Laurent Diago ne bu Siteu. Hmm. c'est-à-dire mooy li ma la ay phénomène lañ. tey nag lamb phénomène soo koy tëgg daf lay jaral. mooy daf lay jaral nga ay moyens pour mën a décrocher ñaari mbër yi génne ay moyens pour mën a am ñaari mbër yi. vraiment génne nañ ay moyens yu am solo ndax ku ci ne li fay ne loo xam te nii jàpp nañ ne euh, prix bi nga mujjee bëree dañ koo doublé wala ñu triplé ko kon yaakaar nañ ne loolu du hasard tamit. Mm. loolu du ay caaxaan. Mm. tey xaalis bu weex tal lañ leen fay pour ñu man a bëree. Mm. pour ñu mën a sëgg li nga xam ne mooy combat bi. ñu gisaat nga monter beneen combat. Mm-hmm. mu dox ci diggante Ada Fass ak Jokkel. Mm-hmm. Jokkel gëj naa bëre. yaakaar naa su ma juumul Maama Lamine la mujjee bëre. Maama Lamine maa ko mujjee tëgg Jokkel. yaa ko mujjee tëgg. Mm-hmm. nga jël ko jox ko Ada Fass lu tax suwaa boobu Ada Fass Jokkel. waaw li tax suwaa bi mooy Jokkel xam nga boo xoole mu ngi woon a mais bi Ada Fass bëree daan mu gis ne moom tey bëri ak xale moo gënal fu mu bëree Saloum Saloum ndax tey bu doon day bëri Saloum Saloum Saloum Saloum mooy may jokkeel sens mais tey ji mhm. mën nañ ne jokkeel mooy may Ada Fass sens ndax moo ko jiitu ci làmboo mhm. ba pare bëri champion yoo xam ne Ada Fass bëri rek ñoom ñun ñu def suñ choix ndax du Ada Fass moo ñu laaj jokkeel du jokkeel moo ñu laaj Ada Fass mhm. ñun ñoo xool gis ne combat la moom te nii buñ ko décroché war naa mën a taxaw ñu ak Baye Fall bi yor Ada Fass ak Ada Fass staffam vraiment bi ñu waxtaanee ñaari parti yëpp hmm. ñun su fekkee ñaari mbëri bëggante nañ hmm. ñu ñëw ci grand combat bi bill Yarakh Bulldozer Bulldozer moom it nekk ndaanaan ci làmb hmm. Thiatou Yarakh borom trois secondes quatre secondes lay laale nga jël ko boole leen ñoom ñaari suwaa boobu boobu nag mu gën a yomb ndax boobu waxaale mu dul une ñoom ñaar ñooñu. waaw amatuñu leen temps ndax dafa fekk combat fekk na presque am na benn promoteur bu ko doon dox. Hmm. dem ba ci biir déggoo ak ñaari mbëri ci côté kase ak ci côté fu ñuy bëree position yooyu. Hmm. après Mata Ndiaye woo ma ne ma combat bi bu neex la est-ce que doo ci xalaat ma ne ko ah, ma ne wax ci laa woo caatu yaraax bon vraiment mu xawoon a dëgër ci moom tuuti. Hmm. soo am du woon bi leser Mm-hmm. ci lañ woo Modou Mbaye Bécaye Modou Mbaye Bécaye woo ko waxtaan moom convaincre ko indi xamal ne ko làmb la comme ni ñu def buusite rek waxtaan ak ñoom mm-hmm. mu accepté pour bëre combat bi ci suuf bi tamit duñ d'accord ñu leen mu ngeen xëyee ngeen ñoo jël si bi ñu jël ko mais combat la boo xam ne nii combat bu solo la ndax ñaari espoir lañ yoo xam ne nii làmb la ñoom yaakaar mm-hmm. en même ay mbër yoo xam ne seen i defet bari seen ay dinaa de victoire dañ ko nuwalee ci làmb ji boo xoolee seen poids ñoo tolloo at yi at lañ magantee at moom bu ñu ne moom ngeen magante rek parce que ay weer ngeen magantee kon yéen ay mm-hmm. maas mm-hmm. boo xam ne diñ fa gis combat bu am solo mm-hmm. comme niñ ko gisee ci Ada Fass ndax Ada Fass Jokkel combat la boo xam ne euh, toujours rek bëri bi lañu a fóori seen i xeex bi ndax boo xoolee Ada Fass li ci làmb bëri la gën a wane ni xeex nga gis parcours Jokkel moom it bëri la gën a wane ni xeex kon yaakaar naa làmb waañu boo fas yéene ko yóbbu arène nationale rek. Hmm. xam nga nag lamb jooju moom xalaatuñ ko yóbbu fenn fu arène nationale ndax hmm. ku ne xam na ne Ada Fass bi mujjee ñëw arène nationale gis nga niñ ko def. Hmm. yaakaar naa Ada Fass doo nga xajul Iba fu ñoo di ko ñu bëgg ko arène nationale incha allah muy le 27 dimanche février di combat mu solo ñu dugal ci espoir yoo xam tamit espoir yu am solo lañ euh, bàyyi ji li espoir yu am solo mooy keremu làmb ñi gën a xew. làmb ji kay macha allah arène nationale boo xefee seize heures. incha allah dinañ dinañ ko tëj. mais dama gis combat bu ci nekk dafa am parrain. wala combat boo xam ne dafa am dafa am marraine parce que gis nañ ci drapeau Bijou Ngoné. Mhm. te bëggoon nañoo xam sa relation ak Bijou Ngoné. waaw Bijou ngoone suñu jigéen la. Mhm. Bijou ngoone suñu jigéen la. Mhm. vraiment ñu seq ay colère ndax bi ñuy bi ñuy organiser tournoi TFP bi dafa defoon ay participation yu am solo jàpp ci bu baax ñu liggéeyoon ci mu jàppale woon ñu tournoi TFP bi ñu gisaat muy jàppale suñu per Gaston di liggéey ak moom ak ñeneen. Mm-hmm. bu ñu gisee loolu kon yaakaar naa loolu rek war nañoo mën a permettre ñu ne dañuy sargal tey bii su ngoonee pour vraiment delloo ko njukkal ci li nga xam ne mooy làmb. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, léegi fi mu toll nii gis nañ làmb ji yaa ngi koy def pay-per-view barki dem gis nañ yenn promoteur yu génn. waaw euh, commencé ko comme suñu papa Luc Nicolaï. wax na ni pay-per-view moo ko indi ci làmb mais bokk na ci li nga xamante ne vraiment dafa yàq yàq làmb. ndax làmb ñu bari ñu ko doon séentu ci saal toog ray xar affaire yu mel <clears throat> noonu seetaan ko mais léegi làmb pay-per-view bi te gis nañ Fallou tamit làmb jooju mu fas yéene ko def pay-per-view loolu ban gis-gis. waaw non ñun bu ñu sañoon tey bépp làmb bu def pay lay nekk. cest mm. mooy euh, pay-per-view yàq làmb moom ñu ma koy wax rek wax ju yàqu la. et puis pay-per-view yi bés promo ko ni Sénégal benn mm. promoteur indi ko Sénégal. Mm. bu doon promoteur yi du cest à da mën nañ ne diw moo ko njëkk a def wala diw moo ko fi njëkk a def wala diw lañ biñ ko a mais actuellement Sénégal Buzz Pro fendi PPV ak équipe bi muy liggéeyal mm-hmm. ñu koy nuyu bu baax mm-hmm. di ko félicité ci affaire bi nga xam ne moom la ci li liggéey mm-hmm. ndax nit ku am courage la day dégg lu mais bu tontoo rek nga xam ne nit ku teey ku yaru ku dal teey tontu na wax na kon du def lu di ko encouragé di ko félicité tamit ci li mu indi ndax PPV tey man su ma gisee ñu ne yàq làmb compréhension rek ci li nga xam ne moo am. Hmm. ndax pay-per-view mënut yàq làmb dafay jëmmal làmb dooleel làmb ndax man li ma gëm ci pay per mooy mën naa permettre tey dem ba fayeeku deux te gisaguñ ko ci làmb mën nañoo dem ba mbër fayeeku cinq ba un milliard. Hmm. su fekkee sénégalais comprendre nañ ko. imagine tey noonu ndax mën naa jënd code bi ñu ne deux mille francs la wala mille francs la imagine tey Sénégal kër gu jënd benn code mille kooku ay ay milliards la. Hmm. bu ñu ko comprendre ne diaspora bi tamit Sénégal yi fa ne ku ne jënd benn deux mille wala trois wala ay milliards la. Hmm. tey bu ñu ko bu ñu ko comprendre noonu ko jàppale sénégalais teewul yow di nga seetaan kër gi di nga seetaan làmb sa kër di nga ko seetaan sa kër comme ni nga télévision bi. Hmm. lenn kese la pupil bi xaw a sensé ak làmb lenn kese la jënd benn effet. muy yow mi daan toog sa kër. añ ba suur ku mel ni Baye Fall. sab jeeg tiim la. tegal la sa ataaya ngay naan di teg sa level di di ah, di seetaan waaw ah. te naan jàpp sa benn télévision di seetaan gratuitement hmm. loolu kese mooy invocognat bi mais leneen amu ci hmm. leneen li ci des nag mooy lamb yi ni mu daan déroulé mu ngi koy déroulé bu neemul engouement la mooy engouement lamb yi tey boo demee signature contrat yi promoteur yi doon def ñu ngi koy def hmm. baanaana si ñuy def ñu ngi koy def bépp luy def ci promotion avant pay-per-view di am gars yi ñuy def promotion boobu kon lan lay reyee lamb mais sëñ Fall dañu gis ni lamb bu njëkk ci télé la nekkoon mais lamb ji dafa mel ni léegi dafa déplacé wu dem ci site internet yi. mais loolu fële jëpp non day day continuer loolu télévision yi tey boo gisee tey promotion yi gars yi def ci lamb ñu gën a ciblé euh, site internet yi moo lay wane lamb jóge na télévision yi. Hmm. tey man ku mel ni man ak samay morom bàyyi naa ñoo xam ne ñu seetaan télévision. Hmm. lépp lu ñu seetaan seen téléphone lañ koy seetaanee. Hmm. même tey bu ñu doon benn émission télévision kon tey làmb dafa dem fu côté bu digital. Hmm. côté woon nag bu demee da ngay teel a yow pour ànd moom pay per tey ko deful ci kanam tuuti ko def. mooy teel koo def teel bi teel xam nan a xam teel a am ak relation ñu def ba nga xam ne événement ba mën a hmm. mooy jëmale làmb kanam te man yaakaaru làmb ci pay per view la nekk nekkul ci ay sponsor hmm. nekkul ci président yi nekkul la nekk. tey la pour euh, benn télé seet si woon. Mhm. bëgg sa làmb yi nga xamante ne organiser na ko mu bëgg ko def en direct ci euh, télévision yi duñ ma seet duñ ma mën a seet si pour jënd sama lampe pour def ko direct. loolu xam naa ko lamb ji teelu leen. non télévision yi mënuñu ko lañ loolu dañ ko mënul ndax déjà ñoom ñu ngi keree biñ ko mënee dañ doon dem di tëggal seen bopp mais gis nga télé bu tëgg perte da ngay hmm. télé yëpp tëgg nañ ñoom ñëpp ñam nañ mais ku tëgg da ngay dem hmm. toogaat. Hmm. kon xam nañ ne lamb yombut te du télévision mooy ñëw jënd tey mën ngaa ah sa lamb bi ngay def pay per dama ko bëgg a jënd Sénégal au niveau de Sénégal pour may ko sénégalais hmm. sponsor moo jënd pour may sénégalais yi. nga koo jaay su ngeen déggoo ci principe. Hmm. benn sponsor ñëwee ne lamb ji ngay def pay per pour diaspora bi. Hmm. jaay ma ko bu diaspora kenn du jënd. man nga waxtaan ak moom li nga war a am ci pay per nga jaay ko ko ndax yow tey ay ay revenu rek moo tax ngay def pay-per-view dem hmm. wuti foo kere ji ay revenu boo tëggee làmb doo ci perte wala boo tëggee làmb tëggaat hmm. tey revenu yooyu ngay wut moo lay permettre nga mën a dugg tey ci lu mel ni pay-per-view mais bu doon yooyu làmb fi mu nekkoon rek koy bàyyi mais dañoo hmm. soxla ay revenu yoo xam ne dañ ko jëlee foo xamante ne ni tey bu ñu tëggee dañuy bëgg a tëggaat duñ perte mais ñun suñu fekkee niñ continuer di tëgg ni amuñu sponsor amuñu Ndiaye production am na ay sponsor yu koy accompagner. non Ndiaye production moom focalisé wul ci ay amul événement bu ñu def te duñu koy def dañ koy def ci anam boo xam te duñ fi ne naan lu neex amateur yeeg lu neex sénégalais yeeg lu neex askan wi ñoo yu newuñ judee hmm. lu ñuy def pour mën cee génn ci loolu lañ nekk loo xam ne ni hmm. événement yi tëgg tey nañ fexe ba sénégalais yi gis seen bopp ñun ñu gis seen bopp waaye sénégalais yi gis seen bopp ñun buñ paree duñ tëggaat moom duñ ko def Hmm. événement bi nga tëgg kañ la ñuy xaar face to face yi ak jouru événement ba lan lañ fa war a mën a gis ci wàllu spectacle ak làmb ju neex ak événement bi. waaw spectacle moom dina fa bari ndax tey jii dinañ jël séeréer yi nañ fa ñëw. Hmm. waykat yi séeréer lay nekk tëggkat yi nañ jël ay séeréer yoo xam ne nii ñu xam làmb la te man ko. dinañ fa ñëw pour ko spectacle bi. dina am ay artistes ñu ngi waxtaan ñoom dañoo bëgg ñëw pour def ay concert boo xam te ni solo lay nekk mm-hmm. ñoo indi seen ay orchestre pour ñu vraiment bégee ndax lamb joo xam te ni lamb jeunesse bi la la mm-hmm. dañoo war a bégee xàppi lamb ji neex mm-hmm. te yooyu yëpp innovation la yoo xam ñu ngi koy wàcc bis bi ba xam te ne ni bépp bu fa ñëw wala fan si club sa xol dina sedd te it boo ñëwee même bu sa mbër mu daanu ñu boole signature le 20 ak le 27 nag ñu ngi indi moom mooy Kankang Dab Daan. Hmm. Iba Mar Diop incha rabbi bu fa jógee nag doo ko dem le 27 mais signature dañ koy boole incha allah le 11. Hmm. di ñëw muy vendredi prochain. Issa hmm. Diop Iba Mar Diop ci kàttanu yàlla. mbër yi nga ci organisé ñëppay ñëw ci signature. waaw 48 heures lañ fay am incha mais signature le 20 bi moo njëkk a commencé bu jeexee ñu jublu ci 27 bi maa lay jaajëfal daal di ñun lu kenn mës a def rek la ñuy def ndax ñooy numéro waaw la ko wax <laughs> loolu yàlla moo ko def ma lay jaajëfal bu baax ci te disponibilité di jaajëfal bu baax ci bi nga xamante ne bëgg nga ko wasaare waaye boole nga ko bëgg site internet yëpp ñu lay jaajëfal bu baax ñoo ko bokk hmm. merci kontaan nañ